la ko waxee rek ki nga xam ne daal moo ma tee nelaw ma bëgg ko ci sama xol bi trop trop trop mooy Béer Binta Faye ku ma ko mën a ñaanali nag moom incha allahu rabbi loo ma laaj ma fay la ma jox la ko <laughs> man Abdoulaye Diop Khass maa bëgg Béer Binta dafay Diaw